والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين جئنا هذا اليوم لنقدم واجب العزاء بالخليفة العام السابع للطائفة المريدية الطائفة الصوفية الطريقة ال ال ال الأعرق والأعتد في هذا البلد الكريم ونحتسبه في عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونحن اليوم نأتي بهذا بهذه الزيارة معبرين بكلمة ورسالة منقولة من سيادة الرئيس محمود عباس ومن القيادة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بعمومه إلى السنغال دولة رئيسا وحكومة وشعبا متضامنين متعاضدين معهم في هذا الحدث الجلل وأيضا جئنا نهنئ الخليفة العام الثامن سماحة الشيخ محمد المنطقة ابن الشيخ محمد البشير مباكي وهم وهما الاثنين وهما الاثنان أحفاد لمؤسس الطريقة ومن السلالة المباركة ومن الأيدي الناصعة التي تعمر في الأرض وتخدم الأمة فجئنا نهنئه بالموقع الجديد وندعو له بالخير وبالعرفان wa bil umri al madid l'ambassadeur de Palestine moo ñëwoon Touba tey comme ni nga ko waxee ci kàddu arab dafa ñëw ndax diggante bi nga xam ne moo ne diggante Palestine ak Touba euh, ndax xam na ñaan yi nga xam ne mi ngi jógee ci dëkk bu tedd bi di jëm ci peuple palestinien nee na ñëw na fi ndax am na ko naqari lool ndax xaritam boo xam ni da ko bëggoon lool sopp ko lool muy Maolana Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mu ñëwoon fii di ko jaale njabootam di ko jaale umma bi yëpp waaye di ko jaale taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp di ko jaale jullitu Sénégal yëpp waaye ñëw fii ngir massawu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci mission mu tedd bi nga xam ni euh, sunu borom indi na ko ci loxoom waaye mi ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko ci barke xam na ne si Mountakha nitu xam-xam la euh, nitu qualité la Euh, nitu culture la waaye ko oyof la te ab suufiyanke pire la kon mi ngi ñaan yàlla yàlla jàmm def jàmm ci réew mi def jàmm ci umma bi def jàmm ci Palestine gi nga xam ne moom mi fa la jógee ba ñoom it ñu bokk ci peuple yi nga xam ne dañuy dund seen indépendance dund ci stabilité dund ci jàmm te loolu la ko Sëriñ Mountakha wax léegi bi ci biir nee na ñu ngi doon ñaanal Palestine waaye duñu dañ ci di ko ñaanal incha daal loolu moo doon fii tey ci Daaru Minam